cher gentenet yu enquête 221 dal leen jàmm dalal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko ci du quotidien mi des ci wàccaayu tabaski gi nga xamante ni jamono ji laa la wax ndugg mi cher na lool xar moom waxaale sax fi mu toll nii kenn ñemewu ko def ndax cher gi mu cher ministre du commerce Abdou Karim Fofana moom di xam ne ci biir yéenekaay bi ne ñaawlu nañu lool yokkute gi am fi mu toll nii ci biir marché yi ndax état bu Sénégal bi santaanewul li ni mel Samba Ndiobène Ka xam ne ci biir yéenekaay bi ne dëgg la dee xar manqué na ci dëkk bi waaye état bu Sénégal gi mi ngi def lu nu mën balaay tabaski yi ñëpp mën a am xar direct news def taxaw seetlu ci xar yi nga xamante ni jamono ji laa la wax mën ngay robb ci biir dëkk bi di ko gis waaye fi mu nii pour nga jënd ko mooy problème cher na ba fa cher yam en tout cas ñiy laam-laamee ndax xar dina amam déet xar dong lañ fi amoon yéenekaay bi di xam le ne état bu Sénégal de jël nañ seen responsabilité ci njëndum xar mi benn kenn du ko yokk ñaar xar dina am ba doy sëkk ndax lu mu néew néew lu ëpp un milliard état bu Sénégal gi dugal na ko ci marché bi lépp ngir ñu wàññi xar yi l'observateur moom ubbi xët bu yaatu jagleel ko ëtt politique gi ak dialogue politique gi nga xamante ni jamono ji may wax ak yéen yénn ci ay conclusion commencé nañ koo xam bokk na ci kaawu Khalifa Sall Karim Wade mii ndax dinañ bokk ci élection présidentielle yi waaw wala déet en tout cas bu ñu ci biir yérikaay bi ñoom seen bokk moom fi mu toll nii ndax benn gannaaw ba ñu nangoo ne ci leen di seetalee ni le ne dinañ modifier article L28 alinéa 3 général pour que Khalifa Sall Karim Wade mii mën a bokkaat ci course bi yéenekaay bi ne leneen lu ñuy waxtaanee kay ci biir dialogue bii mooy troisième candidature du président Macky bi nga xamante ne nii lañ ca mujjee tënk moo di faaw ñu bàyyeekoo rek ak conseil constitutionnel sinon dina tardé seen liggéey te duñu mës a juboo en fekkee ne kaawu Khalifa Sall Karim Wade mii lijjanti nañ ko ca dialogue politique ba kaawu Sonko ak kenn mënu ko faa gi ñuy tànn ki nga xamante ni moo war a organiser présidentielle yi ñu jëm nga xam ne opposition bi ak société civile bii la ñuy mooy mu doon personnalité bu neutre koo xam ne fareewul fenn lii nag ba léegi si laa la wax jubooguñu ca le tey mooy yéene kaay na en tout cas Karim Wade moom fi toll nii réglé nañ ko ñoom ñaar ñii danañ mën a bokk nag ci élection présidentielle yi di ñëw ndax benn danañ modifier loi L28 bi bi nga tëdd yi di ñëw waaye nag fi mu toll nii yéenekaay bi mu ngi xamal ne mooy kaw Ousmane Sonko ca biir dialogue président Ousmane Sonko mii ci élection présidentielle yi ñu jëm leneen la fa lëndëm nag moo di coowal troisième mandat bii nga xamante ne nii fa ñuy mujj ji nag moo di bàyyeekook yoon mu àtte lu mu àtte rek ñu daat ci ànd ak moom Le Quotidien yéenekaay en tout président Macky Sall moom ci situation politique yi nga xamante ni tàng na jër jël na ci responsabilité sama loxo yi la nekk man président Macky Sall dinaa ci def lu ma mën réew nag bu fekkee ne état de droit la il faut que ñuy respecté wante respecté tamit loi yi nga xam ne moo tënk réew mi Walf Quotidien ne li ñu war a waxtaanee kay fi mu nii moo di élection présidentielle yi di ñëw mën nañ xelmati ne Ousmane Sonko mii du ci bokk moo tax parce que faaw ñu wut plan B donte ñoom bëgguñ ci sax waxtaan source aané en tout moo di gis nga dialogue a perte de Ousmane Sonko la ndax fi mu toll nii modifié président Macky Sall gracier leen moo mën a tax na bokk ci élection présidentielle yi ñu jëm leneen li ñu d'accordul kay yéen kaay mu ngi xamal mooy coowal troisième candidature du président Macky Sall la xëccoo gu métti amoon ci biir waaye la mujjee d'accord rek moo di ñu bàyyee ko conseil constitutionnel la juin bii dina def déclaration waaye bés bu fi dëggaleen dina dem ci élection présidentielle yi di ñëw wala muy jéem yokk waxtaane ndax bu desee ci réew mi jàmm du fi am sàkku naa nag ci kilifa diine yépp nañu daal di jël seen responsabilité wax ak président Macky Sall ñaanal président Ousmane Sonko yéenekaay bi di laajte bi du mooyu troisième nga xam ne mën naa indi fitna ci réew mi yor yor bi na en tout cas mémorandum bu Ousmane Sonko bii a tuumaal nag nguurug ndax ci tënk rek lu tolloog fanweeri doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan ci manifestation yi ñu génn ñu arrêté ndaw lu tolloog 650 jeunes ay téeméeri ndaw am ci ay gaañu-gaañu yu metti président Ousmane Sonko nag yóbbante dafa fa ay kàddu yu daw yaram ne leen kese rekk mooy sama faute moo di bëgg gi ma bëgg sama réew nekk opposant président Macky Sall boo xam ne du ko may dara ba noppi nag yàlla may ma mbooloo génn sax mënatuma ko ndax fu ma taxaw ndaw ñi fekk ma fa lii de mooy crime bi ma def ci biir réew mi bu dee nag ndaw ñi topp gi ñu ma topp crime la ci réew mi su boobaa man xamantuma dara ci Sénégal ñiy wax nag waxu coup d'état naan musul am Sénégal waaw wala déet moom président Ousmane Sonko di xam ne ci biir jërekaay bi ne Afrique soowu jant laa wax fii ci Sénégal gii la njëkkee def sax coup d'état jamonoy 1962 ndax la ñuy def Mamadou Dia weesuwul coup d'état l'info yéen kay des ci mémorandum bi nga xamante ni président Ousmane Sonko génnee na ko desuwaat ci fitna nga xamante ni amoon na ci Sénégal nombre de décès yi nombre de blessés yi ñi nga xam ne dañ leen tiir bar réel ñu daal di fay jaare ñàkk seen bakkan lépp njiital Pastef fësal na ko ci mémorandum bi président Ousmane Sonko desuwaat ci situation liquidation bi ñu ko bëgg def pour écarter ko ci élection yi ñu jëm ne lii nag moom dafa def li muy def ci biir yéenekaay bi ne li ma sonal nag lenn kese la bañ bi ma bañ ne kenn du ma noot nekk opposant ferme bu président Macky bëgg gi ma bëgg sama réew ak bëgg gi ma ndaw ñu bëgg lii de moo tax fi mu toll nii nguuru Sénégal gii mayetuñ ma jàmm ndax kuy waxal dëgg te yàlla tax xam ngeen ne lii am ca cité kër góor gi jaaduwul samay avocat sax kenn mënu ma cee tëg bët sama famille mënuñ génn man mii sama jëmmi bopp samay àq ak sama yelleef dañ ma ko xañ génn sama kër sax fi mu toll nii mënatuma ko waxuma laak nag dem sama bërëbu liggéeykaay lii di dictature boo xamante ni président Macky Sall mii moo ngi koy teg ci sama kaw vox populi dalal Abdou Abdou Karim Fofana mi xam la ci biir yéenekaay bi ne fi deful lu dul yoon yoon dina dal ci sa kaw dégg naa nag waa Yewwi bi ne dañuy def manifestation le 25 juin lii di gën a dëggal ne duñ ay kilifa ndax ñu génn gis nañu ne ay ndaw yu bëri ñàkk nañ ci seen bakkan kon dañoo toll laa la wax foo xamante ni war nañoo permettre waat beneen manifestation di fi amaat taa nag moom dana jël ay responsabilité am duñu bàyyi kenn muy salfaañee réew mi laa la wax yéenekaay bi des ci ndamuk Sénégal gi nga xamante ni am na ko ci kanamu Brésil ni ki démb ci matsam bi Sadio Mané mujjee sigil Sénégal ñeent bal ci ñaar lañu door réew Brésil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 pharmacie Al Maktoum solution bi fii la fekk baax pharmacie Al Maktoum ay produits am disponible na partout au Sénégal ak sax ca bitim réew bu dee yéen ñi nekk ci Sénégal jokkoo leen ak maam Cheikh Tidiane Diop numéro bi di 77 604 07 71 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Italie jokkoo leen ak El Bachir Faye numéro bi di plus 39 338 916 03 90 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Espagne ak Barcelone jokkoo leen ak Cheikh Sadibou numéro téléphone am di plus 34 602 11 18 yéen ñi nekkee ci Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 681 289 672 li gën a neex nag ci pharmacie Al Maktoum mooy indi nañ leen ay savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy nes nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndaxte kat wér gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al